billahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëfe sëriñ saalihu jërëjëfe sëriñ saalihu jërëjëfe saalihu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci kii di génn yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di gërëm sunu sang ba sëriñ saalihu Mbàkke di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg lool te wër sëriñ Babacar Sy Mansour mu tedd mi yàlla na fi yàgg loolu te wër sëriñ Abdoulaye yàlla fi yàgg loolu te wër sunu baay bii ci lew nañu seen sunu baay bii ci Medina baay yàlla nañ fi yàgg loolu te sunu baay bii ci Cenaba ak sunu baay bii ci Ndiassane yàlla nañ fi yàgg te wër di ñaanal sunu waa kër maam Rawaan Ngom ca Paal ak sunu waa kër maam alfa Combaan ak sunu waa kër maam Cheikh Omar Foutiyou taal di ñaanal Cheikh sëriñ Cheikh Jëmb faal yàlla na fi yàgg loolu te di ñaanal mboolem kilifa diine bu nekk fii ci réew mi di ñaan yàlla lépp lu ngeen naal yal na ko yàlla àggale ci barke yaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di wax nag asalaamualeykum mbokk àdduna bi yëpp di ñaan suñu nuyoo bi yàlla na fekk yenn ñëpp ngeen nekk ci jàmm di ñaanal président Macky Sall yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko fi yàlla yàlla ko fi yàlla yàlla na ko yàlla wëral te yàlla def ko muy tegu ci yoonu njub saa su ne. yalla ko yalla jubal yalla ko yalla def muy teggu ci yoonu jub sa su ne yalla may ko jam ndax bo amé jam rew mi am jam sen mbokk Serigne Bass Bamba xewal mo ñew fi ci xewal TV di waxtan bu gatt rek ci xew-xew yi nga xam moy xew xew-xewu ye nak da dañoo ñëw ci waji xalé bi ñu wax pap Cheikh Diallo <laughs> pap Cheikh Diallo ma la yërëm barke serigne Touba senegal bo juumee am nga rew mi da ngay nek ci rew mi di def lu bax ñu faa la di la songu di la di la di la tagg di la bége di la noosoo lu nekk ñu koy def waaye benn bis boo juumee am nga problème ndax boo nekkee ci boo nekkee ni ku siiw maanaam say noonu dañuy masqué wu dañuy nekk bukki yu sangoo deru bëy dañuy masqué wu Pape Cheikh Diallo dafa juum te da doon foox ndeysaan ku xam Pape Cheikh Diallo ci télé bi nag laa ko xamee wax dëgg yàlla mosuma koo teg bët ci télé bi laa ko xamee waaye li ma gis mu wane ci tele bi nit ku baax la nit ku bëgg jàmm la nit ku bëgg fola nit ku bëgg a wax nit ku mën a wax ci nit lu baax la moom Pape Cheikh Diallo loolu laa gis si moom de xaw ma ko xaw ma fu mu dëkk waaye comme nag ñun ci télé la ñu seetaane li ñu xam ci ci li ñu la gis nga koy jëfee ci télé yi rek noonu lañ mën a àttee bu fekkee dangay def lu baax ci télé yi ñu ne baax nga bu dee da ngay def lu bon ci télé it ñu ne bon nga ndax li ñu gis rek lañu mën a juger waaye yàlla xam na ni xale bu baax la xale bu yaru la xale bu mën a wax ci nit lu baax la moom Pape Cheikh Diallo xale bu xam teraanga Pape Cheikh Diallo boo xoolee ni muy waxee ak ni muy ni mu dale ni muy xoolee ni muy jëfe ak ni muy kafe wax dëgg yàlla fu baax rek lañ ko mën a juger dafa juum nag ni mu juume mooy dafa juum ci wax ji dane nit ñu ñuul ni danoo golowe danoo nduroog golo foofu juum na fa nduroowunoo golo dafa waroon wax ne nit ñu ñuul ñi ñu ci bëri jëfi golo la ñuy def loolu la waroon wax ñu ci bëri jëfi la ñuy def lan mooy jëfi golo golo boo ko joxoon banaana léegi mu lekk su paree day sànni xollit bi day lekk banaana bi ba pare sànni xollit bi da gis si ñun ku téye sa banaana lekk ba pare sànni ko ci digg tali bi nit mën na faa tarxiis daanu tànk bi damm loolu la waroon wax dafa waroon wax ne nit ñu ñuul ñi dafa am ñoo xam ne jik am na ci ñoo xam ne jikkoy golo la ñu yore golo day yéeg ci branche bi di xool branche bële maanaam day yéeg ci garab gii garab gu naat di lekk garab gi doyatu ko mu bàyyi garab googu dem ca beneen garab lekk mën naa am sax garab bi mu bàyyi moo dàq li ma koy firee mooy da ngay gis ko bàyyi sa soxna mu taaru rafet lool nga dem topp benn keneen koo xam ne sa soxna soxnaa ko dàq fop nga wëlbati ko dem ànd ak moom di mooy yàlla loolu jikkoy golo la dafa waroon wax ne nit ñu ñuul ñi am na ci ñoo xam ne dañoo yore jikkoy golo ndax golo day yàq golo boo ko tegaloon paanu mango fi mu nii day def bu xàmpee rek sànni day xàmp di sànni maanaam day yàq ñun yor nañ jikkoy golo ñun ñun am nañu ci yor jikkoy golo ko jooju maanaam da ngay koo xam ne day dajale at mi yëpp muy dajale doomam dafa tollu diggante muy dajale benn bis ñëw mu toog yàq lépp maanaam yàq lépp ne day teralaate ba pare ne toj naa fi ba pare nag dugg ci gaalu gaalu walaakaana maanaam torox ñun dañoo mën a yàq loolu it di koy golo la maanaam di saw ci mbedd mi wala ci mbedd mi lay saw ñun ñu ci bëri dañuy saw ci mbedd mi loolu jóge golo la maanaam ñu bëri dañuy dem wanag maanaam di tuur dugub ci ci mbedd mi te golo loolu da koy def kon nag dafa waroon a wax ne ñun nit ñu ñuul ñi dafa am ñu ci bëri ñoo xam ne jikkoy golo lañ yore loolu la waroon wax waaye warul woon wax ne nit ñu ñuul ñi dañoo nduroog golo dañoo dañoo jël jikkoy golo nag ñu ci bëri jikkoy golo lañ jël dañuy yàq. dañuy dañuy yéeg ci garab gi maanaam xeeb garab gi dem ci beneen garab maanaam dañuy lekk ba pare sànni ci mbedd mi loolu loolu yëpp koy golo la loolu la waroon a wax ñu ci bëri nag jikkoy golo la ñu yor mais duñu ay golo loolu foofu rek la juume ba pare nag ñu bëri di ci profité ñi ko doon tuumaal góor jigéen te dara leeru leen ci ñooñu bu ñu gisee mu juum dañuy dal ci kawam barki démb ñi ko doon tuumaal ne moo jabaram dañoo am problème jabaram dafa gis ay ci portable am ay mbir yu garaaw ba di ko chantage naan ko wutal ma kër fii wutal ma kër faa dafa am jafe-jafe ak jabaram te loolee dara du ci dëgg ñooñu bu ñu gisee mu juum dañuy dal ci koom ñooñu rek ñooy dal ci koom ak ñi déggul wax ji bu baax xam nga nit information ni koy nettalee ndax boo xoolee euh, Pape Cheikh wax na ay wax yu am solo ci émission bi wax na ci commencement bi wax yu am solo bi mu demee ba ci biir la dugal kaf googu ku ne xam ne da doon kaf mais bi émission bi jeexit waxaat na yéen ay wax yu am solo moo tax gars yi dañuy dagg ay émission dañuy maanaam émission bu jotee dañuy dagg liñ ci soxla li la mën a yàqee ak li ñu soxla ci yow te duñu soxla mukk lu baax lu bon rek la ñuy soxla ci yow fa nga juumee rek lañuy lañuy lañ soxla dagg ko maire bi toog fee xamul xamul internet waa xale bi toog fee xamul internet xamul ne mën nañoo dagg lii mën nañoo monter lii nga ne ko ñëw ne ko yaay dégg li pap Cheikh Diallo wax lu mu wax mu ne nee na nit ñi ñun ñëpp ay gone lañu mer boobu mer paa bu xamul dara mer maanaam lu tuuti la ñuy jaxaseeg àdduna bi te ñi nga xam ne xamuñu ñooñu nag jóg dal ci sa kaw pap Cheikh Diallo nangam pap Cheikh Diallo nangam fekk wax bu ndaw la wax la boo xam ne fo la xam nga ni ñuy racisme buñ koy xeex maanaam du ci ay làmmañ lañ koy xeexe du ci ay wax lañ koy xeex ci ay jëf lañ koy xeexe ku ne xam ne ne tubaab yi moom teguñu ñuy ay nit ay jaam la ñu teg ñu nit ñu nangu loolu ñun nit ñu nangu loolu waaw tubaab yi jël seen frontière barré ne ku nu mayul visa doo fa ñëw ngeen di def pexe bu nekk pour dem te ñoom est que ñoom dina leen teg ay nit maanaam di dugg ci géej gi gaal yi këpp ngeen di dee ngir lan di dem ci tubaab yi bu leen ñëw suñu réew ngeen fay dem est-ce que ñooñu teg na leen ay nit tubaab yi nga xam ne dañuy sol seen yére maanaam ba mu yàqu ba soxlaatuñ ko muy fëgg jaay bii sol seen yére ba buggatuñ ko maanaam ñu dem dajale ko teg ko ci ay ñëw indi ko est-ce que ñooñu dañu teg ay nit tubaab boo xam ne góor jigéen la tubaab boo xam ne day mooy yàlla tubaab bi duñu sangu duñu sangu set duñu buñu bu ñu demee wan ak duñu duñu duñu ay këyit la ñuy fom fompoo sol seen yére ba pare wëlbatiku def ko ngeen dem dajale ko def ko ci ay conteneur indi ko ñu koy jiiroo fii est-ce que ñoom dinañu teg ay nit hmm? est-ce que dinañu teg ay nit déedéet du ñu teg ay nit tubaab yi tëdd seen lal ba mu maxee ba mu muy ba mu tëdd seen matelas ba nooyatul maanaam ba bëggatuñ ko teg ko ci conteneur indi ko ngeen dem xëccoo di xëccoo conteneur bi nga am na conteneur bu wàcc fi ay matelas la wàcc te bàyyi fi matelas yu bees yi te li nga ciy teg ni ngay jëndee ci conteneur ba bu dee quatre mille lay jar ñu jaay la ko foofu soixante-dix mille boo ci tegoon vingt mille am matelas bu bees tax bu set wicc waaye tubaab tëdd ci matelaam di ci mooy yàlla di ci tour sobe du maanaam tubaab yi salte duñu duñu sangu farata tëdd ci matelas ba doyal wëlbati ko ñëw nga dem ramas ko ñëw indi nga naan vana la vana vana la da dégg sax ñu naan la vana moo gën moo gën bu baax bi dugal nañ ci bopp nit ñi loolu non kii bi vana la portable bi vana la xam nga pièce bi vana la te bàyyi fi bu bees bi est-ce que ñoom dinañ teg ay nit gis ngeen bu fekkee tubaab yi ñu ngi ñuy tar traité raciste ñun duñ ko mën a dindi ndax dañoo am complexe ci tubaab yi dañoo complexe ci tubaab yi mais dafa am loo xam ne euh, nit ki nit ki bu juumee boo koy wax na ko wax ndànk Pape Cheikh Diallo ku ne xam ne nit ku am jàmm la nit ku baax la nit ku nit nit ku ku bëgg jàmm la foo ko fekk day ree foo ko fekk mi ngi kanam gaa ngi belli foo ko fekk maanaam mi ngi mi ngi jàppale ay doomu adama foo ko fekk mi ngi dimbale ay doomu aadama waaw ku mel noonu nañ ko jàppale bu juumee mais lu ngeen ko fi ji ñun amul ji ngeen ji ngeen ko fi góor jigéen te du dëgg kenn mu mës sa taxaw ne maa bett Pape Cheikh Diallo wala maa ko gis fenn ci mbirum góor jigéen jabaram jii ba mu ko takkee muy liggéey teefee mu ne ko demal ci kër ga toog kenn déggatu ko kenn gisutu ko ma nga ci këram toog di sëy te karal googu mu def nag il faut ngeen indi ay mbir yoo xam ne maanaam naan dañ balaa dañu da koo da koo bett ak nangam ak da koo gis ak nangam da koo am fu mu ko téye nee na na ko wutal kër ak nee na nangam nangam xam nga loolu rafetul ñooñee nag doon wax loolu doon bind loolu di wax loolu bu nu gisee Pape Cheikh Diallo juum dañ ciy profité waaye mbokk yi jàppale na daal ku doon wax la wax bu am solo dem ba ci biir mu dugal ci kaf ndax xam nga stress bi nekk Sénégal nga yew rek amo dépense nga ta radio bi gis pap sey Diallo muy fo di wax ak nit ñi ñuy ré lool dina la dina la mëna wañi lu bare bare bare bare il faut bo mu doon def nak ci la joom gis nga li ñuy mer ni di fuñ fuñi manam nan du naan duñu ay goloog duñu ay ki nañ bayyi jëfi gol pour la légui nurul ay golob ba paré di jëf jëfi gol ñu ci bari jëfi gol la ñuy def gis nga gaay saw ci mbéd bi gis nga gaay ku naan sa kaasu café ci mbéd bi ku lek sa banana ci mbéd bi soo gisee Europe soo demee doo fa gis mbuus muy naaw benn mbuus muy naaw rek doo ko fa gis mbalit doo ko fa gis mbalit doo doo ko fa gis ci tali bi benn xob buy naaw sax doo ko gis ndax mbalit mii ci tali bi nii ci mbedd mi nii nit ñee ko fi def kenn def ko fi nit ñee ko fi def kenn defu ko fi dangay ku nga toog sa cigarette sànni nga xaaxtandi ko sànni tali nga bëgg saw dem saw ci tali dem saw ci ci miir miiri jàmbur yi hmm? lek sa banana sani xolli sa orange lekk sani hmm? mbali mi dajalo waxon naa ko fi ci ay waxtaan kaasu agité yi bi koy indi fi pour set la won mais dafa ñew tank dafa ñew tilimal ndax fo tourné da ngay gis kasu agité ci mbéd bi tuba bu lekkee fa da kay dem dugal ci poubelle bu ko gisul mën na koo ba dox un km door ko dugal ci fu mu gis fu mu ko def waye ñun ku lekk ba paré nak ko xur nga naan sa mbuss ndox ne xuru sani xam nga loolu du jikay golo yoyep ay jikay golo la maanaam dafa waroon wax ñu ci bëri ay jikkoy golo la ñu yore kon nag dafa juum te ba da doon foo xam nga bu doon wax dëgg sax ba pare juum dañ ko war a jéggal waxantuma la nag mu nekk nit ku baax gis nga nit damay faral di wax ne tooñ lu mu rëy rëy rëy rëy jéggalu ko gën a rëy yow mi topp Pape Cheikh Diallo naan walla dafa def léegi dafa rasit maanaam dafa dafa dafa dafay xas nit ku ñuul maanaam tooñ nga yàlla te bi nga tooñee yàlla wax nga astaghfirullah te tooñ ba nga yàlla tooñ ba nga tooñ yàlla mën naa am sax moo gën a wax ji Pape Cheikh Diallo wax mën naa am nga doomu jàmbur mën naa am njaalo mën naa am naan nga sàngara mën naa am lekk nga riba mën na mën naa toog ay ay ay ay fan julliwoo woor weeru koor wooroo ko am nga xaalis na toog asaka yaa ngi toog naan yàlla astaghfirullah mu lay jéggal kii nag wax benn wax boo xam ne leer na leen da foofu kenn mënte dóor sa kaamil ne Pape Cheikh li mu wax ci dënnam la ko jële da doon fo ku ne xam ne na ku bëgg senegal ba mu amee fukki at ñett ba léegi mu ngi nekk ci télé beeg rajo bi kenn mës a dégg mu wax lu ne accam mais ci li ngay liggéey ci ngay faqasal alkaati léeg-léeg mu bëgg a ñëw di maanaam nit ñi gréew mu bëgg a jubbanti nit ñi pour sànni benn mbir pour xale yi daw mu dal ci benn xale mu daanu dee wala bëtam toj wala loxoom dagg jubluwu ci woon loolu léeg fi ku jàpp doomam di ko jubbanti dóor rek mu dee loolu juum la nit matul kon su juumee maanaam nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko waxaat rek ne ko du nii nii la maanaam nit ñi duñu ay golo nit ñi ay nit lañu waaye bari na ci ñoo xam ne jikkooy golo lañ yor yoruñu yoruñu jikkooy nit ndax ñaari nit yu nekk ci tan mbedd bi di sëy maanaam am na ñoo xam ne sax golo yi ñoo leen tane waaye ñi ñu jàppoon ci grande mosquée bi ñaari góor ñooñu jàppoon ci biir grande mosquée ñuy sëy est-ce golo tanewu leen boo jëloon ñaari golo teg leen ci buntu jàkka ji maanaam ñu bugg a sëy duñu dugg ci biir jàkk buntu jàkka sax duñu fa sëy ñaari ñaari góor jigéen ñi jàppoon ñuy sëy ci biir grande mosquée ñu ak golo ko tane am na ci nit ñi ñoo xam ne golo leen tane barke sëñ Tuubaa am na ñoo ne golo sax ñoo leen tane am na ñoo xam ne boo leen waxee golo golo yi dañuy mer ndax golo yi jomb nañoo def loolu xam nga golo yi jomb nañoo def loolu. kon nag seen xët-xët ji ngeen nekk saa yi dal ci kaw doomu jàmm ji lu ne dugg ci te def li mu def nii maanaam njuumte la ñu naan voilà bu dee dafa bokk ci ay lobby nag génn bugg koo dugal ci nag bugg nga xëcc wax ji taawi ko du sotti de Pape Cheikh Diallo ko bëgg bari na lool lool lool lool ñu ko bëgg bari na nit ku ku baax la ci li ma gis si moom wax dëgg yàlla moom rek laa ko mën a seedal su ma gisoon ci moom naka su dul noonu moom tàkk naa ci koom bu yàgg waaye nag ba ma ko dalee seetaan yàgg na boobu xale bu tuuti la ci RTS ca 2 maanaam ba ni mu ñëwee TFM nii ba mu ko dalee seetaan yàgg na émission yu am solo lay def waxtaan yu am solo lay def wëlbatiku it foo ko gis kanam gaa ngi ndax kanam waaw du kaso mais koo ci tëj mu xam ko mais nit ku baax ci kanam nga koy xamee da ngay gis kanam gi day belli waaye nekk fii di fuñ fuñeeg maanaam di fas sa kanam lu ne nga dugg ci ku am dara ku gaare oto bu bees nga bëgg a xar suuf si dugg ci. ko sol yere bu bes nga bëgg a rey sa bop loolu lañu wara war bayla baax bi te ñaanal te comme tok na mom mu jéggalu yéen dem na ba Mali jënd guro ay paja guro tuubal wa Sénégal ngeen war ko bal nak waaw yeen sax mom manam ñukoy bal ñal la ñun ay nit lañu duñu ay golo loolu mom na leer duñu ay golo ay nit nit nit lañu yalla bind ñu suñu taaru jekk lu mu bind ñoko ci gënal duñu ay golo waaye ñun ñu ci bari jikkoy golo lañu yore golo sax ñoo ñu tare ndax liggéey sa liggéey maanaam bokk say nat nekk ci marché bi fajar ngay dang-dangi benn bis nga am xew nit ñi di la jay nga jël loolu lépp tuur ko ca loolu golo loolu koy golo la ndax golo boo ko tegaloon paanu mango léegi day xamp benn sànni xamp benn sànni ko lekk golo ñun loolu la ñuy def dañuy dajale ba mu bari ñu yàq lépp ci benn bis loolu di koy golo lekk banana sànni naan ndox sànni safa saw taxaw ci mbedd mi saw jékki-jékki xool gisoo kenn nga sëgg sumi su tubay dem wanaan loolu jikkoy golo dafa doon wax nit ñi ñu ci bari jikkoy golo la ñu yoré kon nak Pape Cheikh Diallo da nga joom jéggal nañ la te tooñ lu mu rëy rëy jéggal lu moko gëna a jéggal nañ la na nga xam moytu sénégalais moytu ñenn ci sénégalais da ndax la ñu la doon tuumaal góor jigéen te xamalul la dara sa jabar ji bañ ko tekkee ba léegi kenn dégg ko ci dara ma nga tok këram bi sey fan yee de nga pap Cheikh Diallo dafa am ak problème jabaram lolou dafa jar bind ci internet bi yow mi nan pap sa Diallo dafa am ak problème jabaram yow yow double problème nga am ak sa jabar ndax keur yepp ay yeungu ku nekk ay am ak problème ak sa jabar motax yene site internet dañu wara bay yu ñak fayda yi ñuy bind hmm? dañu wara bay yu ñak fayda yi bind yu am solo yaangi fi dañu wara bay yu ñak fayda yi bind ay pap sa Diallo bu amé problème ak jabaram lu suñu yoon hmm? duñu jema bay bay bayi leen dal ñu waxtaan ndax ay xalé lañu ñu ñaan yalla def ci lu rafet ñoom ñëpp ñu ànd waaye di ko bind ci internet wane photo jabar ji wane Pape Cheikh Diallo maanaam ñooñu nag nga xam ne tey jii ñu ngi doon bëgg lu leer ñu ngi doon bëgg di di la tuumaal yow Pape Cheikh ñooñu nag bu nu gisee nga juum rek dañ koy jéem a exploité waaye ndokk ba Sénégal nga Séné ba Sénégal yow ndax Sénégal nga booy déglu internet bi ak rajo yeeg télé yi da def ne Sénégal day toj waaye nit ñaa ngi ni tekk de nit ñaa ngi ne tekk di déglu rek. gaa yi gaa yi borom bopp borom nopp garme yi ñu ngi ne tekk di déglu kenn mu leen a fëkk kenn mu leen a yóbbaale kon loolu laa wax ci émission bi ci émission bu moom laa ci doon waxtaanee ci mbirum Pape Cheikh Diallo di ko ñaanal yàlla jàmm yàlla ko yàlla may jàmm yàlla na ko yàlla may jàmm ku ne xam ne ñoom seen télé boobu mis bu nekk ma tàkk seen kaw saa bu ma gisee ñu def loo xam ne nag su noonu ma tàkk seen kaw maanaam wax ci li ma ci xalaat bu Pape Cheikh Diallo defoon loo xam ne naka su noonu la it damay tàkk ci kawam comme ni may tàkk ci nit ñi. waaye nag dafa nekk doomu aadama boo xam ne ku baax la maanaam ku am jàmm la ndax gi nga jàmm soo ko amee rek baax nga jàmm te Pape Cheikh Diallo ku ne xam ne ne borom jàmm la ndax foo ko gis ma ngay ree kanam gaa ngay belli ma ngay fa fexe nit ñi mi ngi bëgg nit ñi am jàmm ñi ngi bëgg nit ñi di ree loolu nag bu dul doomu lan mooy doomu aadama kon yàlla na yàlla defal jàmm njaboot Pape tournel passe bi nga nekk nekkaat sa liggéey xam sax yow zéro stress ngay dund maanaam nga nañ la borom nopp garme yi nit ñu baax ñëpp jéggal na la gars yi nag bàyyi leen ñu coow ñi doon wax daal da nga da xuloog sa jabarak di la jiiñ ay góor jigéen ñooñu ci boppam ñoo ñoo ñoo la song nii mais du dem fenn du dem fenn allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa salama tasliman barke borom Touba barke borom Touba jaaraama Serigne Saliou Mbacke jërëjëf